lu ñu seen bopp maanaam ñu lal bi buñ ne mbilim la ci ñu daal di yegg teer loolee la xale yu jigéen yi di bañ yéenekaay gi di Rewmi Quotidien benn xale bu jigéen di nettali nee na moom li nga xam ne moom lay jël mooy beurre de karité am lu mu ko booleel rax ci chocolat nee na guddi gi dafay neex am na beneen xale bu jigéen buy nettali ci biir yéenekaay gi ci produit aphrodisiaque yi ak feem yi nga xamante ni moom lay def ba borom këram mën a jàpp forme moom nee na jinjeer lay jël defar ko ba mu baax yéenekaay gi na bëri na ay góor ñoo xam ne nag ñoom tim ñoo ngi jënd li nga xam ne mooy aphrodisiaque yi ndax xam nañu seen bopp bëri na ay jigéen ñoo xamante ni ñoo ngi seen biir néegu sëy danañu ko jënd ba def ko ci lekk jox ko seen borom kër te du ko xam yéen kaay gi nee na am na ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram yu bari yoo xam ne daal dinay am ci produit aphrodisiaque yi nga xam ne ñoo ngi koy jëfandikoo yéen kaay gi nee na lépp nag li ko waral mooy góor ñi nga xam ne dañoo impuissance mënatuñ seen bopp ak góor ñi nga xam ne danañu toog yàgg loo xam ne seen xel sax du nekk ci jigéen yéen gi di vox populi ñu fekk fa docteur Babacar Diop nee na dialogue politique bi ay caaxaan la ay tappale la moom nag waa OFNAC daal nañu koy déglu nee na la nga xam ne moom la tuumaloon Mansour fay ba léegi nii moom la koy tuumaal lu jëm ci wàllum parparloo lu jëm ci wàllum guerre ak lu soxal wàllum conflit d'intérêt nee na loole lay tuumaal Mansour fay ndax dafa njort ne def na ay léexóor ak i njaaxuma ki tojaange ci milliards yi nga xamante ni joxoon nañ ko ko ngir mu jënd ci ak dund yéen kaay gi di Sud Quotidien ak enquête xëy di ñu xamal naan ñu dialogue politique beeg jafe yi nga xam ne am nañu ko ngir tànn kan mooy nekk chef de l'opposition mbir mi yëpp jébbal nañ ko président Macky Sall ak ay député ba ñu daal di koy càmbar ñoom ñoo yor seen cëggul guy jamono ji yéen gi du l'observateur xëy na ci président Macky Sall ak ni nga xam ne moom lay defee tuur lëndam di bëlëf moom président Macky Sall ci lu soxal wàllum dialogue national bi yéen gi nee na ñi nga xam ne ñooy majorité bi ñoom nag Idrissa Seck la ñu voté ngir nag lu jëm ci wàllum chef de l'opposition réew mi quotidien ñu fekk fa Modibo Diop responsable politique nekk ci Fass Colobane Gueule Tapée ne bu ñu waxantee dëgg techniquement élection locale yi app bi ñu ko 2021 a nekk ndax nag bu ñu réviser code électoral bi bëri ci ay poñ yoo xam ne dina jaar assemblée nationale te fii ak 2021 lépp mënu fee daal am moo tax moom Modibo Diop nee na Covid 19 jafe-jafe yi nga xam ne moom la indil réewum Sénégal ci lu jëm ci wàllum koom loole rek war tax ñu bañ a ay élections locales yi nga xam ne bu ñu ko organiser ay milliards la say dugal la ñu ko war a jàpp boole ko ak élection législative yi Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur ni mu waxee maanaam ñoom jàpp nañ ne élection locale yi danañu ko dàqaat ndax Aly moom Ngouille Ndiaye bi ñu ko laajee la mu xam le nee na ma ngi dépendre ci li nga xam ne mooy fichier électoral bi yéen a gi délibération ñu xëy fekk fa ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñu laaj ko na ko ñetteelu mandat yi nga xam ne moom la ŋawta ŋawtee ci réew mi Aly Ngouille Ndiaye lan moo ci sa xalaat mu ne du ci wax lan dàq ku ko neex te du si wut aw lay exclusif mu ñu xamal lan ñu maître Moussa Diop jamono ji soo muy tulee dañu koy tere mu génn réew mi te si sànq ko la ñu jëm l'info nee na syndicaliste yi nga xam ne ñoo nekk Dakar dem dikk li ñu sàkku mooy ñu auditer maître Moussa Diop yéen i kaay gii réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu covid 19 ni nga xam ne moom la indee ay gàllankoor ci presse bi waa presse bi patron yi nee nañu lu toll si ñent ci ay milliards daat nañu koy ñàkk yéen i kaay ñu koy fekk fa waa Synpics ñoom nag ñoo ngi bu baax a baax dina naqarlu ba pare di sàkku jigéen ñi nga xam ne ay journaliste lañ nekk ci rédaction yi maanaam ñu leen di xoxotal di leen di dégg fitna yéen a kaay gi di réew mi quotidien dikk na ci nga xam ne moom lañ dénk wàllum économie ci réew mi daal ak ambassadeur bu Allemagne lu soxal wàllum coopération financière ak technique toll ci quatre-vingt-six milliards laas yéen a kaay ne Allemagne kay dafa dimbale Sénégal ab don boo xamante ni toll na ci quatre-vingt-six milliards yéen a mu xëy di ñu xamal naan ñu Aly Ngouille wax na lu leer ci màggalu Tuubaa gi bi ñu ko ne ko Aly Ngouille Ndiaye màgg màggal gi dafay am wala du am lamu leen xamal mooy laaj leen ko xalif la ndax màggal gi yëfu muridi la te sëriñ Muntaxa Mbàkke moo yor kàddu gu mujj gi yéen a kaay gi de la témoin daan nay dikk ci projet bi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky tegoon na ko fi ngir ñu xeex lu jëm ci wàllu mbënn mi lu toll ci 750 milliards la ñu génne woon waaye nag 750 milliards yooyu kenn mënu laa wax fan la dugg ndax tey la askan wi gën a mën a am ay jafe-jafe ci jëm ci wàllu mbënd mi waa xaalis boobee ana fan la dugg yéen a kaay gi mu xëy ñu xamal naan ñu ñi war a def déclaration patrimoine def nañu ko ndax nag OFNAC dinañu publier li nga xam ne mooy déclaration yi yéen a kaay gii sunu làmb dikk na ci Alioune Sarr mi nga xam ne moo jiite CNG ak mandaam bi nga xamante ni mooy jeex dinañu amal assemblée générale fanweeri fan ak benn ci weeru octobre dubalee sa bàyyi Balla Gaye numéro 2 nee na ndaw Ndao Tyson war naa mën a jiite CNG stade yéen a kaay mu ñu xamal laan ñu Sadio Mané mi nga xam ne moom la ñu tudd FC Barcelone njëg bi ñu ko xaymaa toll na ci 82 milliards journal bi nee na Manchester City jox nañu waa Naples ab ab lu jëm ci Kalidou Koulibaly lu toll ci fukki fan